nga quand vous parlez des des des problèmes de la presse souvent vous parlez de la corruption. bokk na ci. mais problème presse du loolu kese. doon na doon baax candidat di concerté wu avec les acteurs des médias problème mu formation qui est journaliste qui ne l'est pas gis nga dernier épisode bi un site en ligne toog des gens toog jël tout leurs responsabilités. mais di wax des horreurs sur Mame Mbaye Niang et sa famille et après aujourd'hui j'ai vu une affiche où il demande pardon à Mame Mbaye Niang et j'ai vu une fille se réclamer waaw ñun journaliste yi bu ñu yoree information dañu koy joxe moi je suis choquée te aujourd'hui les sites en ligne pullulent sites yi doo fa gis ay journalistes wala bariwul sites yoo xam ne situ euh, euh, série yi am na ay journaliste mais site yu bëri amul journaliste donc le problème de formation qui est journaliste qui ne l'est pas état fan yële attaqué nañ fi Serigne Saliou Gueye naan dafa def usurpation de fonction je pense que euh, ñi mérité usurpa ñu ñu attaqué leen pour usurpation de fonction attaqué wuñu leen problème mu régulation et je me demande Moussa boo Thiam et, et tous les autres ministres qui sont passés lan la ñuy xaar pour mettre de l'ordre dinañ def les assises de la presse. ñu ngi c'est un coup. si j'étais non assises yu yu non non non c'est des assises très sincères organisées par le par le par, par le SYNPICS et des et des organismes yu appartenant à la à la à la CAP c'est des assises très ouais, sincères. non je veux dire si moi j'étais président de la République quand je serai président de la République dinañ def les assises de la presse comme on fera des assises d'autres de beaucoup d'autres choses dans le pays là jàpp bi war na toog loi yu mu voté. mu appliqué ko. mu appliqué ko c'est ko xam nga aussi si difficile ngay ngay ne da ngay teg ci yoon ay nit bu fekkee ne yow doo teg tegoo ci yoon te état Sénégal dafa mel ni yoon moom bu ko arrangé lay ne yoon la surtout pour dal ci kaw nit ñi. damay jox benn exemple bu mooy faral di joxe tout le temps boo xam ne c'est extrêmement important wax nga fi ARTP DG ARTP. Euh, loi sur la le communication électronique bu ñu tuddee woon code de télécommunication avant dafa tere directeur général bi mu nekk en même temps un élu benn fonction élective cumul de cumul de fonction ou ou ou ou nominative ou et parce que dañuy bañ conflit d'intérêt maanaam nekk nga directeur général ARTP bëgg nga euh, benn benn benn ci opérateur télécommunication bëgg na la jàppale boo nekkee président wu benn club de football mën na ñëw day day réfectionner terrain de football bi jox ko ay maillot fekk en fait yow la bëgg a jàppale nekk nga maire comme c'est le cas. Euh, waaw waaw waaw la question a été soulevée à propos de Abdou Karim Sall maire de Mbao euh, DG de de de de, de formellement et totalement interdit. Mm. maintenant du moment que xam nañ ko. dafa war a deñ ñu demoon nañu def ci conférence de presse wax ci dem ba nu nar a def ay recours cour suprême après lan lañ moo ciy tegu noo quel est votre vous n'avez pas qualité à agir nga dépenser ci sa xaalis dal nañu ay yoon yoon donc bu fekkente ni réew la ñu nekk boo xam ne <laughs> yoon bi ñi ko ñi nga xam ne ñoo ci war a njëkk tënku parce que dañu ne l'état de droit et état de droit mooy état boo xam ne ci moom moom day tënku ci yoon jomm jalgati yoon ñëpp di ko gis parce que bu mun bu munee jalgati yoon rek warul mun a tere keneen jalgati yoon bu fekkee ne état bi mooy njëkk a jalgati yoon lépp lu mu def leneen dañuy nee jaay doole la te loolu mooy dëgg lu tax bu ñu taxawee di wax journaliste bi dafa far ak jour ñoom am nañu journaliste yu leen faral ñooñu wax ñu ci dara am na naam journaliste yu nekk ci ay chroniqueur duñu ay chroniqueur dañu far dafa am ay envoyés spéciaux permanents de yenn parti politique yi lañu dans la mesure où dañuy gis beneen envoyé spécial boo xam ne xam nañu kii dafi toogal nguur gi léegi nekkatul problème mu ñooñu dafa nekk problème aussi maison de presse buy nangu loolu maanaam parce que booy def benn métier ne imam nga wala waykat nga wala footballeur nga mais dafa am ay règles ak ay normes yoo xam ne minimum war nga ci tënku mais sur ce sujet là euh, xam nga dañoo tolloon moment boo xam ne euh, analyste yu bari mënatuloo teg koo xam ne dafay jouer pleinement neutralité réew muy jaxasoo entre deux mille vingt et un da ngay gis analyste boo xam ne euh, da ngay sentir ne sensibilité opposition la nga gis beneen wàll bi analyste boo xam ne da ngay sentir ne sensibilité pouvoir la c'est pas interdit hein l'essentiel nañ ko assumer après des média euh, ont décidé par exemple nga recruter leen euh, deux chroniqueurs kenn ki day nekk sensibilité opposition sens du parce que à un moment donné on était très gêné par le déséquilibre bu bi doon am dans l'analyse et euh, le décryptage de de de l'actualité et c'est pas et c'est pas et c'est pas différent de koo xam ne wala euh, il il est là pour un homme politique wala pour qui mais euh, ça c'est des sensibilités euh, yoo xam ne. Euh, li ngay wax euh, d'accord mën naa ci d'accord peuvent être acceptées. mën naa ci d'accord bu fekkee da nga dem bëgguma tudd ay turu yenn réew yi. mais bu fekkee da dem ay Amérique wala Europe da ngay gis ni média bi dafa am sensibilité dañuy assumer seen position waaye ci dañu am benn déontologie éthique boo xam ne au moins duñ ko jalgati cest à bu bu fekkente ni yow yaa ngi de droite bu amee congrès de parti de gauche di nga ko nettali di nga wax nu mu demee di nga ci wax les faits après ñoom seen ci sa biir commentaire dinañu xam ni yow. ñoom si ñoom par exemple quand quand ils sont quand quand un journaliste français de est de est de ou de gauche euh, idéologie wu parti de gauche yi moom euh, moom lay utiliser ci loolu lay toog pour critiquer l'action euh, du gouvernement quand c'est un gouvernement de de mais les faits il donne les ah, ah, ah. xam nga mais fii da ngay am télé boo xam ne da ngay am ñaari chroniqueur yoo xam ne kii du idéologie de gauche la la amee non dafa bokk ci benn parti te boo moytul sax parti boobu da koy fay foofu lañ toll c'est-à-dire que en fait dañu toll foo xam ne sénégalais yi wóolutuñ dara quasiment suñu dara wóorutuñ ko nañ waxante dëgg ko <laughs> si jàpp ni waa ji dafa def commentaire am parce que fii la bokk. Mm-hmm. fee sax mun na ko bañ a nangu c'est-à-dire que am na bis bu lakk am na ay xale yu fa dee. ñii ni amul lakk-lakk. ñii ni lakk-lakk am na. loolu nekkatul ay dama far fii wala dama. far on donne la parole et on s'échine à prouver qu'il n'y a pas eu incendie. que c'était un complot de l'État du Sénégal alors que ay nit ñoo ci ñàkk seen bakkan c'était inacceptable on, on dit que waa du chauffeur ouais. et on le relaye on dit que waa du chauffeur non euh, policier la et on dit que après am ñu toog euh, ay chroniqueurs yu toog ci télé bëgg loo sénégalais yi que loolu nekk na avoir une théorie du complot xam nga euh, mu am yenn fait yoo xam ne bu fekkente ni am na en tant que journaliste li nga xam ci ci ci ci ci ci ci par exemple boo accusé nit charge la preuve yow yaa ko war a indi da gis journaliste yu taxaw ni mais Thierno Sall na setal boppam ci affaire bi alors que li ko accusé kii ko accusé indiwul preuve bi ay chroniqueur dal na ma ci affaire de Farba Ngom